gars gis nga alaaji lii ñuy wax naan ay a dox ba dajeeg seytaane déedéet. Hmm. nit man ñun ñeent lañu ñu ngi nii toog. kese. bi. dégg nga. Mm-hmm. Euh, euh, euh, njuumali. mu nekk man mii. alaaji ngeen xam ko ba pare. waaye comme que rus ngeen maag. ragal dugg ak bëgguma ko ma meree yooyu yooyu tas kër. Uh-huh. waaw. Uh-huh. déggoo ma de. boo ma daal sëgg bàyyi mu jàll. déedéet. Mm-hmm. Mm-hmm. boo waxee ak man ba nuppi. Mm-hmm. ma insister ci tànk ruubee ah, bëgg yàq ambiance bii ne fi mbir mi neex bay bëgg dee auditeurs yi bëgg lool te mu leer na leen ne. cat lii mooy Ahmed mi raxlu. boo sonnee ba sonn ci yedd gi alaay. da ngay woo borom kër gi. nga ne ko diw. nee naa ko lii ak lii ak lii ak lii ak lii mu bëgg. Mhm. mais su insister soit duñ bokk studio bi wala mbir mi dana xajam. Mhm. rek moom daal buy ruubee na koy defee feneen. waaye en tout cas kër gi daal moom ku fi ruubee. Mhm. ñu xam la dañ lay weer. mooy dëgg ku fi nekk di comploter alaaji dañ lay weer. <laughs> yonent ne suñu rab da koy bañ. waaw ne sa mbokk bu tooñee faral ko bu tooñul ko ñu ne waaw. ku fi di bàjjo. ku ñu weer la. waaw ku tooñ ku tooñ moom euh, ku tedd gi. nan lañ lay farale woo ko teg ko ci siraatal mustaqim wax ko dëgg mm-hmm. lii yéen ñi xalaat dëgg loolu dëgg mm-hmm. waaye man su Lamine Ndiaye mii di ruube ci biir kër gi mm-hmm. man loolu daf may neex parce que day ñëw far ci sama clan di ruube di jaay seytaane kër gi ne bu dee teel nag alaaji maara di taali te ñun ñëpp ne ci biir gaal gi suux ñu suux suñu ëmb suux waaw ana fu ñuy muccee mooy lépp taxaw da ngay mujj dañuy suuf suñu ëmb suuf liggéey kat moo leen dinañ la jël. surtout boo melee ni man nit ñi bëgguñ la. xamuñ la amoo buzz rajo bi soxlawu la. Mm. yow da ngaa war a ñaan yàlla rek jàmm di fi am. lépp taxaw waxoon màgget dong de lay. a ah, baax na yéen a ngi seetaan deew. waaye xeex bi de kenn du ci mucc de. Ah, baax na te du mooy ña mooy mooy ñaari sindax yi doon xeex laaj. waaw sindax yi xeexe ca ca ca ca kaw néegu ñax ba. waaw nit ñi di hmm. seetaan. bi tax ni leen yéen a ngi seetaan de. Hmm. waaye du leen ci mucc de. waaw hmm. gars yi nag waaye ñun suñu luy suñu yoon ci ay si ndax yuy xeex. mu dem ni fas. waaw waxal ci gars yi xeex seen xeex bi mu jëm du baax de. baax na. fas ni ko bul ma sonal sama yoon nekkul ci ñuy xeex. mu dem ci nag ni ko nag. ay tee ngaa dem ci ñaari xale yi di xeex. xeex bi boo ci waxul fa muy mujj yi du baax de. waaye nag ni ko ba ma fontoo yow tamit waaye yow. li li sama yoon ci ay sindax yu xeex. Mhm. waaw mu dem ci ci xaar. waaw di ko wax ci boo yi xeex. boo yi seen xeex bi ngay seetaan. ñu ngi taal ay pënu. ñu ngi lakk sànneen tay doj. di manifester di manifester. waaye waxal ni ko waaye yow bu ma fontoo waaye booy. yow ay sindax yu xeex ca kaw pujub nekk lu ci sama yoon. dëgg dëgg fa yàlla. ay yéen amoo leen xel baal ma dem ci ginnaaw. Hmm. wax ko seq. seq ni ko booy man man man sama jéeg yi wër ma laa tànkaay man maa ngi ni man doog maa fi seq am naa cinquante jéeg yu ma wër bàyyi ma lijjanti leen. foofu yàlla. dem ci maire bi màgget gi nag ni ko maire. comme ñee ay bàyyi ma lañ yow nit nga. waxal ci booy yi di xeex. ngeen nekk fii di exposer ay nit ñuy wax. di leen muur. Mhm. di taal ay pneu. bàyyi leen li ngeen di def te ngeen wax ci xeex bi maire bi ni ko mu man doom lay sama yoon ci xeex bi. si ndax yi xeex bu jógee ci puju néeg bu ni bëtt ca ànd ba. Ah, xal yi tasaaroo. Ah, néegu ñax ba jàpp. <laughs> maire bi laataa ñu ñu di wàllu si maire ba dee ca néeg ba. allahu akbar ñu ni musiba am na musiba am na pitax moom naaw dem. néewoon naa leen néewoon naa leen ay diyam ci bopp borom pitax naaw dem maire ba dee na. ñu ni eh néegu ñax ba boy. eh Abdou Karim eh! fas yu dem tàggi ji waay xam nga boo fas la ñuy tàggi amul téléphone. demal dëkk sàngam neel neel diw dee na néeg baa lakk ci kawam demal dëkk sàngam mu yëg fas wa di ko dawal pëcc pëcc pëcc pëcc pëcc fas wa ba dog bi daw bi mujj kii fas dog ñu bisi daal di dee ah dëj la xam nga mhm. nag ñu ni ah comme du dëj bi bu dëj bu bees la nit ñi dañuy ñëw nañ ko nañ faf yemale yëpp tey rek ñu ni naa ko deqet rendi rendi ah comme am na ñett amul ñetti fan amul juróom-ñetti fan waaye gan ñaa ngi ñëw hmm. ñetteelu fan ba ñu jël kuy ma ni ko deqet ah juróom-ñetteelu fan bi amul ñett fan amul juróom-ñett fan waaye nag gan yaa ngi ñëw. yaa mm-hmm. seq ni ko deqat kër ga tasu seq mi woon yoonam nekku ci deena ca. Mm-hmm. nag mi ni woon yoonam nekku ci deena ca. xar mi ni woon yoonam nekku ci deena ca meer bi ni woon yoonam nekku ci deena ca. te bu ñu àtte woon xeex bi du egg foofu yëpp. bu ñu àtte woon coow du jib moo tax ma ni leen yii ngeen di def nii. jaxal ko calmer leen jeu te wax ji jeex ku ni sama yoon nekku ci dee. da lay xeeb xel mu. la yaa ngi tënk njàngale bu am solo. non kër gaa tas mais ba dee na fas wa dee na nag wa dee na xar wa dee na ginaar ga dee na. sama yoon ci. te ñoom ñëpp ne woon seen yoon nekkul te xoolal te kat coow li mantu lay bët bëtoo la woon a si ndax bu jigéen. Mm. bët bëtoo bëgg ko tam naa xam nga ni ñuy def nawet noonu rek eh, si bopp yi. du buto buy incarné. bu naan ko setem. danaa ni ni def bopp xale bay bañ. xale bi bañ. muy ni sa ndax wu jigéen ñi jékki bi eh, sa ndax bi ni daw. sa ndax dem ci yeneen si ndax jigéen naan may violé mi may violé. daw dem ndax. bët bëtoor bi moo doon violé si ndax waaw si ndax bu góor mooy mooy. mooy violé si ndax bu jigéen bi mu daw làqatu ci nañ ni mi ngi may violé. bëri bëri googu moo ci kaw. yëpp ci affaire ay viol la jógee waaw si ndax bu jigéen bu mag bi ni ko yow bët bëtoo booy bàyyil xale bi mu munu ko mat na yeneen jànq yi ni ko booy mu muñal mukki parce que yàgg yàgg ci seen ngi mujj këfin mu këfin ñuy dàqante naan ni ci néeg vëdd vëdd vëdd vëdd ñuy wax leen ci ñii violé na ko violé wu ko siif na ko siifu ko menacé na ko wax leen ci bàyyi leen wax ji mu jeex. la ca doon ca bakkan de mu jóge alaay. am tas xoolal li mu ci wax non doon nekk ci kër ga dee na fas wa dee na nag wa dee na. xaw ma ma dee na seq nga dee te lépp ci viol bët bu taw dong la viol. gis nga ko <laughs> gis nga ay nag ay nag dëgg dëgg ay lu koy fayee gën lu koy eh, eh, ta eh, de. ñoom ñaar ci dañoo daanu ci biir ànd bi. dañoo dee. ànd ba ne bëtëtët xale ba mu dalee xale ya ne bëtët dal ci néegu ñax wa. ci néeg ba lañ dëkkoon ñoom itam. waaw ci kaw lañ bëgg a daanu. cay bët ba tóor. dégg waxuñu waxuñu ko taal ay da ngay mucc de. dañu ne ay du yam ci bopp ba. waaw maanaam taal ay du la tax a mucc. déedéet am na am ay woo xam ne dañu am ñoo ñu fekk mu tàkk ba pare. ñu jël seeni da ca def. di xam ba. ne ay woon nag du fi yam. duñu ci mucc nag duñu ci mucc mukk duñu ca mucc ci àddina ay ku koy xam ba laalox ni doo ci mucc non mais ay tamit duñu ca mucc ñooñu seytaane yi mag yi ndax mais duñu ci mucc yi wallaahi bur ma tër moo si ndax su jigéen si ndax su jigéen si ànd bi dañ dañoo jógee ci kaw daanu ci kaw ànd bi ànd bi xal yi tas léegi xal yi tas nag bi ñu tasee la ñu laal néegu nax mi néegu nax mi mu ne jéppét ci la maire bi dee maire bi dee ñoom itam ñu deewaale waaye moom bër ba tër waaw sa ndax su góor sax su jigéen di dananoo dee dañu see lañu deewaale dama ne léegi ñoom loolu nañu ña bokkul woon ñëpp. tamit te attewuñu loru. ñoom ñëpp ca la ñu deewee te kat. booy booy boo waxoon fas sax doon tàgg ji daa mbooyaan. am na semaine boo xam ni doxul. yaramam yàqu. mais ba dee bàyyi fa ñaari doom. tool ba mu fa bàyyi woon ak as néew ñu xëccoo ca ndono la ku nekk naan maa ko war a bay ñu xeexoo kenn ka jam kenn ka paak. i boo compter bakkan ya ca dee alaaj yow kenn xamul lu mu toll. xaw naa mat fukk ak ñett de. moo tax bu leen xeeb affaire ay kii de violé na maag siif na bàyyi leen yëf yi mu sedd te jàmm am ci réew mi akuk dal ay di ci bopp borom de. baax na ay bàjjo bi. ay bi bi laay violé si bët bëto. ay bët si ndax bàyyi leen si ndax bi nen naka suuf nen xam nga yàllaa ngi maandu maandu goo xam ne maantu lay si ndax buy nen kenn du ko fekke day gas ba mu xóot mu suuli nenem te dem coow jibul fas da koy joggi dem nen du toj nit joggi ko dem fas du toj nen du toj asamaan taw ci kawam nen du toj jaan di gas ba jige ko romb ko nen du toj nen def fa ay ay ay ay fanam. Mhm. ñor ab ñori boppam toj toju boppam. lii bu tooy xib mooy bënn suuf si génn. di lux lux def fa benn quarante huit boo xam ne kenn du ko gis nit ki romb jaan di romb muus di romb lépp di romb kenn du laal. ba mu màgg mën a dox commencé ñëpp ñëpp yéeg sàkket yéeg mur dem boo bàyyee rek yàlla indi solution boo nee tekk tekk wan la yoon mais bul pexe bul fexe. bul fexee boo fexee rek. Euh, euh, da pexe mi ngay pexe yàlla day yàlla day fexe. Mm-hmm. te mm-hmm. yàlla nee na damay fexe xajul ci seen pexe. parce que booy fexe da ciy yéene waale yéene bu bon ca ka ngay fexeel. Mm-hmm. yàlla nag ni yéene ju bon du dellu ci lu dul borom. balteng si sedd sedd. sànni muy ñëwaat. sedd. balteng si la de da ngay sànni muy ñëwaat. jool bi yoolu jool jool bi si ndax bii li ma ci jàng. wala <laughs> si ndax sa day. <laughs> sa ndax sa ndax sa góor sa la. si ndax bu góor bi bu jigéen bi la. bu jigéen bi itam da da daa waaba jiba. seytaane bu mag. gën baa gudd. kàlla si ndax bu bi gën bee gudd. si ndax su jigéen si. te du ma mën a waxale tamit ne ne ne ne gaa ngi nii di ma di ma di ma raas. waaw moom xanaa bañ koy raas kenn nekku fa. dégg nga li wax. Ah. wala li ci dee. nan la dawee ci néeg bi daw ci néeg ba tàbbi ci ànd te yuuxuwut wàll. moo ko tey. yow yow Diakba bi may may jàng histoire foo nekkoon tamit nag dellu soit day metti euh, ah, na ma yéen seen da ba pare la mbër man de dama doon sango wala dama doon ko doo dellu soit nag ci ci ci histoire u sa ndax su góor seeg su jigéen <laughs> bi ci tànku lal bi waa ji ni ma waaye si ndax la wala sa ndax si ndax bët bëtoor ah du sa ndax. si ndax la. si ndax. si ndax da doon jéem sandax sa ndax si. da doon jéem bët bëtoor da doon sa ndax si ndax. mbottu nduur war waraan ture. sama ndey. ay man si bu jigéen bii. ay sa génn gudd doom. ay mbottu ngom. kii de bu yëngoon yem ca yem yem ca kaw sàkket wa rek. non te nangoo rek yem ca kaw sàkket wa rek ak bërbëtër. billaahi te nangu mais tas nañu kër gi. rayi nit ay nit du ko ci ànd. seen ndey lañ ci tas rek waaye borom kër ga. gu mag gu jigéen nga faatu na. maire baa dee ci néeg ba ndax daa lakk néeg ba daa lakk mënut génn doom alalu maire ba kenn ka rey kenn. ka rey kenn ka ndax dañu xëccoo tool ba mooy yëgoon fas wa booy booyaan ñu ne déet ni waaye dog dee fas wa dog dee ñu dajale meex ba nag waa nag wa ca kër ga ñett fanale ko kuuy ma juróom juróom ñett fanale ko si ker ba nit ña bañ na du ñu ñibbi woowu borom tura ab jàtt la fa bàyyi oh xamul ab jàtti jàtti kër ga mujj gent waaw daa gent ab jàtt la fa mooy jàtt mujj oo oh, réew maa mujj wàcc ay ay ay sa ndax su jigéen sa yàggu du génn <laughs> ci loo xam ne ndeysaan bu ñu àtte woon ah non non si ndax mënoon Sinta non Sinta. nga ne. waroon non. Sinta sa ndax su jigéen sa. jéem a weer lu góor gi din ko. munoon ngaa toog ci kaw sàkket wa rek. ngay ba ànd ak bët ba tóor ci kaw ànd. tal tal ko wallahi wallahi alaaji bi lay wala reetaan de xise bi dafa am solo ci réew mi. non non kii ni muy ni muy wax nii laay reetaan. loolu si ndax bu jigéen a daa daa daa si ndax bu jigéen mi ne daa daa tus ngalu daa de. moo tax bërbëtër topp. waaw ah, ah noo def. ay defit nag da cee toll it nag. waaw moo indi coow li de. moo indi coow li toll de. moo indi coow li. <laughs> d'accord mënoon na nemm ca kaw. Ah, ah, ca ca ca ca kaw néegu ñax wa. waaye nag alaaji yal nañu yàlla musal ca ca ca ca bayre bi nga doon wax de bayre bi jinax ba. ay waaye julli sa ndax su jigéen si mujj nga am bayre di bàjjo bi. nu ji nu ji ndax ji ñaanal ma bayre. <laughs> nee na ko ci xoolal sëñ bi loo ma ci ñaanal xeeb naa. bayre waaw man daal mantulaay fu mu génn mantulaay mantulaay biir Cambérène ngi appel bi dafa mel ni. man dong maa fa ne moo fa ne moom dong fa daa sol lu weex ma sol weex. mantu gi mantu gi mel ni tulleeg mal an sa papa Simer an sa papa Mansour. waaw mais moom a gën a gënuma bàyyi ñaanal ma sëriñ bi laa lay wax ni alaaj <laughs> ne ci nax ci ah! bay de day ànd ak muslaay de mu ne ko jaru ko man naa siiw rek lu siiw doyul ah. ni si na su jigéen sa ay ah. yaa mujj am tur bàjjo bi fu ma jaar rek nañu nañ ma joxoñ ci waaw sëñ bi ni ko ndànk sëñ bi ni ko ndànk rek munu ko mukk Mantoulaye jinax lànk jëm kaw jëm suuf mu ne bësu Simeer Diop bi laa bëgg. Hmm. génnul télé génnul rajo te foo tourné ñu ne la ana Simeer eh Badio bi si ndax su jigéen si ne dee alaaji nañ ko ko ñaanal. <laughs> kàcc yow jëm Badio bi. léegi mu ñaanal ko. léegi nag il faut mu am musulaay <laughs> ah, alaaji Lamine. waaw yonent nee na mën naa fekk gileem ci kaw montagne wàccee ko. wallaahi. Mhm. Mhm. déggoo ma de. waaw mhm. waaye lamiñ day caaxaan. sa waay laa lay wax ni xoolal sëñ bi ñaanal ko. day jàpp gileem fexe ba ñu sewal ko. da koo ñaanal la ñaanal la ñaanal la ñaanal bay rek goo xamante ni nii. laalal ci ñaq lale. bee juróom-ñaari pot la. <laughs> foofu ngay dooree. bi ci topp ji daan ji daan dem sangu. ma tooy. yow pot wuy ma alaaj njëkk su njëkk si. waaw ah. mooy ñaari juróom-ñaari pot la. da ngay taxaw ni ñu xool sotti benn ñaar donc ñett <laughs> ñeent muy juróom-ñaar. Ah. bi ci topp juróom-benni pot la. <laughs> bi ci topp juróomi pot la. bi ci topp ñeenti pot. bee ñetti pot bii ñaar bii <laughs> boo paree nga ñëw fii ci suuru gi. suur waaw ah, dama laa bëggoon defaral musulaay waaye. Eh, nii pot la. karaw ji ndax daa oyof de. 7 6 5 4. karaw ji ndax suuru ndànk rek. ànd bële. waaw. bët bëtul duggoon nag sa ndax su jigéen si. suur <laughs> suur yi day day suuru bu paree day suuru. kooku li mu laal yëpp dafa tooy te xam nga jëlaat tam karawam dégg nga loolu alaaj <laughs> ndax su njëkk si juróom-ñaari pot la. waaw ba ca topp juróom-benn. ba topp juróom. bii ñeenti pot la bii ñetti pot bii ñaar fii ngay terminé <laughs> mooy benn pot bi bii war a nii rek nii rek wutalil ànd ba ak sa tooyaay waaw fekk na xëpp na ci li muy suura dégg <laughs> nga suuru sa ñëw taxaw benn léemu laalee léemu nga génn barke yu neñ ci affronté monde bi foo génnati affronté monde bi cëy bi non dina xam gàllaay. foo génn ñëpp ah gàllaay. alaaji bay bay bay ba mu noppi. mu laal potam yëpp nañ ma calculer pot yooyu ñaata la waaye yónnee ma ko message aw ma taa. 28 pot la. amoo taa bu dana ne ci yoon 28 la. 28 pot la. aw ma taa aw ma taa damaa ne ci yoon dañ maa yónnee ak. mbay jow neen 28 pot la. dégg nga loolu lu tolloog ñaar fukki pot ak ak ak juróom-ñett. alaay jinax sangoonam. mais jinax nag ay na. jinax ñeneen a sedd nag. 28 pot. ñeme na sedd nag càng sedd bu nekk njaq su xam nga njaq day sedd. ak ah, ndaw woo man a la sedd xeeñ. ay ndaala ndaay kii yii. dégg loolu alaaji. waaw mu ëlbati ko gars yi mu fa la ñuy suuroo. laal bay ti selis. jirax yu ti selis. ko ba nga pare. pare laa lay wax ni sëñ bi alaaji léemu ko. pare léemu gi la def rek ne ko wuy ma. wuy ma génnal nga affronté adduna bi. Ah. songal monde bi. lay yaay doon bàjjo bi. Eh. génn mu génn. dana ñun mi taxaw ci buntu kër sëñ bi rek. waaw. gis muus yi nii. muus moom fu mu fekk ñu ndax lekk rek. mu mu duggaat. ah sëñ bi ne ko nañ jël suñ temps. bu ñu la ñaanalee bayre dañ ciy boole muslaay. bayre day ànd ak muslaay. waaye mel ni Ahmed Aïdara yi lëmbër lëmbëri nii rek di dem am nga tuut am nga tuut yooyu lëfër lëfër dañ lay rey laa mel rek nañ laa rey. dégg waaye bi mu ne ñun mel ba ni buntu kër sëñ bi rek yem ci addinaay muus. Oh. mu delluwaat ndànk ni ko sëñ bi muus laay muus. ay dof dof lu rey. dafa la engagé ñàkk yi nga. waaw ah, waaw yow. waaye bàjjo bi de. sa muus laay des na de. daa topp bëre. daay daay jël daay bàjjo du ngeen ma faat. ay si ndax su jigéen si fu mu ñu toppee. Hmm. la ilaha illallah. ndax ma ni. Euh, léegi alaaji. naa xam ma boobu la fi bugaan ngeen dañu yore woo. ah bon waaw nekkee ci média yi moo tax xeex yombaan ko. ko <laughs> dénkee réew benn pays. li benn pays limitrophe du ñu yem. laaj vingt-huit suuf suufu jànji suufu yoon suufu marché suufu jàkk suufu suufu bàmmeel suufu fu ñuy ngéntee euh, taatu garab gu ay nit di toog. ba ci suufu terrain football suufu terrain football nit ñi di daje ak suuf ak sën. suuf ak sën sën ala kulli alin chaque jour nit ñi di fa dem. waaw imagine nga jaxase yooyu yëpp alaaji. ak la nati. ak suufu jànge. suufu jànji suufu tribunal. suufu suufu suuf. waaye xanaa suufu xoolee ci des. waaye yow. waaye yow. ndaw xëy alaay man damay mujj bàyyi. non moo farax dëgg dëgg dëgg bu ñu ni déet yamu ci mu mu xëpp ci sunguf si nag. waaw naan day suur. boo fekk na sëñ bi defarul ko kii ànd. ak xol bu ndaw ak xol bu ndaw bi mu yor ba fa toll dafa pare rek ñu hmm. muur daa pare rek ñu mu mu sóoru ànd bi <laughs> xaarul fenn de dafa xaw a wow ndax ànd bi noonu moo xaw a wow rek sëñ bi ne ko taxawal ne la ma léemul <laughs> léemu ko ba pare ne ko wuy ma génnal affronté adduna bi. di nga siiw ni dugub billaay yaay raw Fatia. yow siiw na siiw na de. laay laay la ay bàjjo bi bi mu génn <laughs> moo génn mu gudd. da ñu ñuul métti yem ci muus yi delluwaat ni ko sëñ bi. muslaay muslaay muslaay muslaay waaye banjo bi day. waaw moom sangu na. waroon nañ la waroon nañ laa defaral muslaay. Fallou xéwal baa ngi lay nuyu. ah Fallou ci xéwal gi. Eh, Diène Diop alaaji. doomu raw ñun de suñu gan gii. gën gi de dina ree ba sonn moom kii de coono sax ko fi indee na xar waaye. mbay jaxate yow ma ne la. dañ loo ba nga fàtte sa naqar. waaw kay noonu la ne xoolal adduna bu la kenn stressé. déedéet lu mu métti métti ba sugal defal nii. ruyal stress bi ba mu far. ko ba mu far nga xoolal nga. nga ni ko sëcc naan. wala nga naan. yow yow. nga ni ko sëcc naan. sa naqar de dund la. waaw waaw. da nga koy seetal ni yaa ngi na pettaawal de. jaxase ko naan. tane gi nee na. tey eh, ci alxames gi. Mm. waaw xéewal ngi nii eh, eh, baax na. ay kayit a ngi nii ñu lem boole ci piis. Mm. ah ah, ah. ndima ah. mm. nga ah, eh, xaaral ma ñëw yow xaaral xaaral léegi xaaral ma jàll léegi gone gii réer tamit xaaral yow ma ñëw. Jéem mm-hmm. Diop. waaw doomu Rama ak Ibou Diop. Mm-hmm. nee na taalibe la. Mm-hmm. Euh, dafa réer nag ku ko gis daal na woote ci vingt 881 27 03 voilà. ooy Cheikh maa ngi lay nuyu bu baax ak euh, Serigne Omar Mbacké waa Modou 3 gi maa ngi leen di siyaat euh, reeru jàmm <laughs> de. de suuf suuf <laughs> nee na suuf yi ma lim sànq daal <laughs> daa xamul ku ko dajale yëpp foo koy jëlee alaay suuf yi suuf yi dañ koy wut ci réew mi. dañ koo soxla am na ci ñoo xam sax dañ koy denc seen i kër. suuf ban ak leen ko laajee du leen bett suufu marché. marché suufu jàkka. Mhm. suufu ba bàmmeel. Euh, mhm. ak suufu tribunal. suuf suuf ak suuf ak jànj. ak suuf ak jànj. jànj ma ak juróom-ñaari ndoxi teen yu bokkul. ah day de daa. ah. lii. lii ah. man lii dem na ma rey ba pare toog fee. wuyu ma yeneen bayre jaral. la ilaha. <laughs> sama diw ñëwal moo akka. bayre moom xoolal boo sangoo suufu marché rek pare nga. diw akka ay marché fa lépp de. akka ay ci bayre boo ne salaamaaleykum mu ne la wuyu ma. lijjantil ma eh, eh, eh, suuf yi ma lay bëgg a limal lijjantil ma suuf suuf suufu tribunal. ak suufu assemblée nationale. lijjantil ak <laughs> suuf assemblée. <laughs> man de bu ma wutalul suufu palais bi bu ma wutal bi léegi man de may naa leen sama wàll ci réew mi dem naa génn naa. yow gars yeeg ñaankat yi. xanaa gisoo. wala gisoo gisoo kilifa yi bu bu amee bu amee kilifa bu laaxu dañuy dañuy wattu bàmmeel ay fan. waaw. ndax fay toog di ndax dañu ah léegi dañ fay toog de. nit ñi dañu fay toog ñi dëgg dëgg les grands voleurs sàcckat yu mag. yi bañ mën nañu laaj ay suuf nag. yi bañ bañ dëgg dëgg seen coow siiw. nga xamante dañuy gas suul. ba nga xam ni tey fay ba ba daanaka kenn dootul tudd si ndax tudd leen. Mm. yooyu lañ ci yooyu lañ ci wutee. ah am na jibar yu mel ne Karim ñu ngi dañ naan la fi ñëw bi jógaatul. coolu du jugaat. réewoo jàmm de réewoo jàmm de. <laughs> suufu marché. waaw. <laughs> suufu armeer. Euh, suufu jàkka. jàkka waaw suufu juma. waaw ñaar yëpp leen sant waaw suufu jànj. juróom-ñaari janj yi bokkul. <laughs> suufu non suufu janj am na seeti de am na janj bu gudd ak janj xaw a ndom. ak suufu may ga. <laughs> di ci boole saf. alaaji may ga fay daje. ak saf. Eh? may ga ëpp mbooloo ci adduna. may ga. may ga may de. addunaa fay daje. Hmm. saf na safle na. laa illah lewetul. mayga mais ci kanam tuuti nag léegi ñu utal ko alternative de bu ko amatul mayga demal ci maire bi jaay fondé. billaahi xam nga mayga du lu bon lu bon bon di nga génne sept cent. wuti huit cent. waaw ndax pomme de terre beeg yu saf yu farax yooyu noonu. <laughs> mais mais maire bi deux cent rek. sa euh, léegi alaay sa lu fees. te léegi gars nee nañ famille am lay wër papaam fa famille papaam Ablaye Mbodj Amadou Mbodj. Omar Mbodj euh, Yamar Mbodj. dégg nga. Mm-hmm. Euh, Mbodjee nii euh, kii seen mbokk la yéen lay wër bu dee yéen a ñuy déglu woote leen ci soixante dix sept cent vingt six cinquante et un soixante quinze. dégg nga loolu Dame Ndiaye nee na daa réer lee. Mm-hmm. benn saaka amee kenn du ñu stress loo. dégg <laughs> wu def carte d'identité carte web lii booy déglu yéen nii léegi nga dee. dégg ñaari mu ne livre arabe dégg Euh, ak loolu leerul en tout cas lait de corps a nga ca mooy diw dégg nga ak ordonnance ci benn taxe la bàyyi lépp koo gis ne na nga woote ci 77 566 69 76 bayre boobu la ñoom buggaan ngay dañu yore <laughs> bayre jàng la tàng jër wala eh, mais jamono ji moom jamono ji buñ ko sange moom jamono moom buggaan buñ ko sange xanaa kon suuf léegi moom kuy wutul moom suuf su bay wutal suuf su petal sen <laughs> fu la ñëppay daje. non Petersen. fu la lépp di xew. Oh, ah. ah Petersen dafa am sama ñaari rakk yu fa nekk. <laughs> ah fu la ñëppay daje ni ah, Xaadim Dieng ak Mara Dieng ñii doomu Alaaji Njóogu Dieng transporteur mag bi Alaaji Petersen graw tëb ko quoi yow daal ah. demal laal. mais suufu jànj moom lenn lay def ci yow. waaw da lay def da lay def ngay ngay tàkk. gars yi duñ la ñeme de. ak i jànjam de. non da ngay tàng jër. bu le non alaay defal ndànk. am na jànj bu taxaw am na jànj bu bu xaw a ndaw alaay defal ndànk jànj jànj jànj daal jànj jànj xorondom yi dëgg dëgg rek. te ragal naa ni yi temps yàgg yi ci waaw le journalisme classique. waaw. xam ak ak stress ba muy cent fois. yooyu lañ daan sangoo bayre yooyu lañ mooy jamonoy Sada Kane ak ñoom Bougane Gueye Dany. waaw yooyu lañ daan laal. <laughs> janj yooyu lañ daan laal dégg nga euh, euh, te su bi dafa am janj boo xam ne dem tibb suuf. Bougane de basam sàlliw. ngay bàyyi ba xandoom bi génn bay bay du gas dugg si waat nga tibb suuf si am janj boo xam ci fa ngay sotti fa def ndox ma yow yow ñii nit ñi def. kenn mënu alaaj eh, léegi alaaj na sama xarit bi Abi Thiaw léegi Abi Thiaw dafa am sërëm bu mu bokkal ndey ak baay sama xarit la woon Abi Thiaw daa génn àdduna àdduna bu bu bu bu gaaw ndeysaan mu metti lool ndax moom sama xarit la woon sama soppe la woon ndeysaan voilà suufu banque yi de kenn waru koo fàtte ndax banque yi itam li muy dalee ci ay tax doo banque de abi ñu ngi lay jaale bu baax ami di ko ñaanal yàlla fi mu jëm yal na ko gën fi mu bàyyi amiin amiin waa camp pénal liberté 6 aussi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax di ko teg ci loxol mbay jaxate moo xam naa suufu kaso sax war na cee liberté 6 laa di wax dëgg yàlla ñu ñu ñuy déglu lañ détenu yi foofu lu ñu bëgg lañ ba ba ba appel bii rek li ma sol ñoo ma ko ñoo ma ko ñawal baaxee ma ko yi ñu baax di samay xat di samay wóolare donc maa ngi leen di nuyu ñëpp jaarale ko ci mbay jaxate Iram Cubb sama mag grand sama grand frère happy birthday to you sama xarit Euh, voilà léegi alaaji test bu njëkk bi. waaw. ñëw na. c'est que même même trafic ñun dañ ko war a wut. waaw la. mais tali moom ko sangoo maa leen war du bëri. déedéet fu mbooloo amee sa kaw. Eh, ko sangoo doo doo kii de doo doo def journal gàddu say bagages dem. <laughs> wan na ay yow. suufu <laughs> place de l'obélisque itam sooful de. mami eh, boobu moom boobu moom. kooku. boobu moom doo tardé ndaje. kooku. ku woote yaa nga fa. su studio bi am na ñu ko fi fan. suufu place de l'obélisque. kooku ah. am na ñoo xam duñ tardé dëj. duñ tardé ngénte. kooku duñ tardé takk. <laughs> hélas Pape Alé. am na ñu ko fi sangoo de waaw waaw non c'est que dafa am ay ndaje yoo xam ne. ndaje alaaji dañoo bëri te wuute. ah ndaje. Pape Alé. ah am na ñoo xam ne dañ géejewaay ku foo woote ñetti nit rassemblement. di ngénte nga dem te tudd ma. Ah. wax jaaju ah, di damay wax rek. ah baax na. Ah, ah baax na. waa El Hadj. baax na eh, xeebul benn xew géejewaay. <laughs> dégg nga dafa am ay ndaje yoo xam ni. <laughs> baax na. waaw dafa ay ndaje yoo xam ni. wax ngi bëgg am doom de. ay ndaje yoo xam ne alaaj. Mm. waaw yow da nga war di ñaan yàlla. Mm. balaa moo am fekk nga dem. waaw. déggoo ma de. waaw. balaa moo am. fekk nga dem wo ilaa boo fa fekkee fekk nga ndaje ma tas. Mhm. yooyu it am na ay xeetu ñaan. yoo xam ne ñu ko mën lañu. waaw déggoo ma de. fu coowoon seytaane war a am nii. Mhm. alaaji doo fa dem. non balaa ngaa yegg si. Mhm. ñëw ñu ne la waaye yow sa waay yow. <laughs> yaay nga loo xam ni. Mm-hmm. tey coow li amoon fii. Mm-hmm. nañ fi ñaari nit nga ni allahu akbar wéy coow lu garaaw. Mm-hmm. nga yegg ne dem nga trente minutes après. coow la kalaate. ñu ne la de laa dimbali da dem rek. coow li jeex. non da nga dem rek coow déclenché wu. gars yi daal ñoo génnee fii ñaari locataires yi xeex boo xam ne fii paaka yi gaañ da nga dem rek. non day baax. yooyu it am nañu ci aay. boobu baax de. am nañu ay ci yooyu. boobu baax de ngay ute. nit dañuy ute. waaw nga yow. yooyu naa la jox sa secret bi yow booy. waaw <laughs> moom il faut ñu aar la parce que seet bu bees nga mani. ñun ñi nga xam ne sax daanaka caatlu nañu moom ñun su nekk suñuy kër sama néeg ba ma war a beroo nga ne alaaji daanaka léegi peinture ba rek a ca des ci garage bi laa nekkoon mais néeg ba daanaka pare na man beru naa. bu yabu de moo la ciy génne. yee alaaji. wallaahi mu la ciy génn. barbatóor bi ci euh, bu góor bii. waaw waaw day tax nga mën a. sa ndax ah. naa yàgg na. day tax nga mën a <laughs> naafi la. Pape Alé. nga ne barbatóor. Ah? waaw El si ndax si jóge ci kaw daanu nii ba dëkk ba yëpp lakk. ay nit ñu bëree bëri dee. sa ndax su jigéen si toog fii jàkkaarloog nit ñi gayeen. jaru ko de. si réew mel ni ku ne ci dëkk. naa waroon foo ne nii. Ah, maa ngi ni rond ah waa ayca demal ma gis. voilà merci beaucoup l' actualité du trafic di wéyandi sur la quatre-vingt-neuf point sept di wax ne rek sujet passé au niveau du rond point Seydina Tall mën na nekk tey jii amul benn jafe-jafe ça circule tranquille surtout nag ñi nga ne ni ñoo bay ko sur les deux voies de Mermoz wala sax ngeen bay ko du côté de la Corniche foofu la yëpp ngeen progresser tranquille bu dee nag da ngeen génne sur l' avenue Bourguiba foofu la moom fa de signalisation yi kese moo sécurité passé au niveau intersection du relais euh, foofulee dafa saturé complètement ay jafe-jafe neen la rawatina nag ñi nga xam ne ñoo bay sur la VDN bëgg progresser euh, sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar foofulee dafa saturé complètement des longues files de voitures moo di xaar foofule et puis dañu am difficulté rek daal progresser tranquille même situation aussi pour ñi nga xam ni ñoo bay ko du côté de la ko ak buntu ministère de la santé foofule yëpp jëf waay ok. aywa le cousin. voilà. Cheikh Anta Seck nee na bu ñu fàtte suufu université. tey laa man tey laa bàyyi sénégalais. Euh, façon suuf bu ne bindal nañu ko message. Euh, léegi nag balaa ñoo ci suñu. non nekkete réew mi jàmm rek moo fi am. waaye yow man. jàmm waay lu dul jàmm jàmm ko gën. wallaahi wala bëgg a dundaloo stress. bañ ma message ñu bëri xaw ma seen turit nag waaye ñëpp jàpp leen daal stress bi daal moom. ma ni dañ ah, koy ruy naan. kii nee na ak suñ suufu plateau bi. waaw moom laa bëggoon wax de non suufu Deme Dia rek suufu Deme Dia bayre la. bayre parce que yéen. ñooñu naa parce que mu leen singalee ba ñu leen seen bayre kee xëcc. xam nga jinax ba mu sangoo 28 mi daa génn yem ci muus di ko seen baykat bi da ngeen cee fàtte boole waale. muslaay waaw waaw <laughs> boole ci moom moom moom coup de filam la yor woote xam naa technicien bi nekk TNT nag moom kii du kii dugal kat euh, génne moom dugal yo moom moom. roc moom moom waaw moom moom fiiru seen tii moom da koo xam xanaa yow booy suñu fiir bi nekk TNT daa daa daa xongo wala daa am daa mel ni génnu bët génnu génnu si ndax parce que Babacar Diagne day woote rek TNT ñoom Jupiter euh, rëcci leen fiilu seen tii bi. mu woote fee tubaab bi kanam ñu ñu dindi ñu waaye xale am seen mat dinu nu koj rek. ca YouTube baak fu ne. réew mi. kii mën ko wax mère bi nga jóg. merci beaucoup. bilaay ñi ngi dindi stress waaye yéen tamit kenn du yéen. Euh, ah. rek. Euh, alaaji. Hmm. Euh, nañ kii nee na ma suufu dara. <coughs> Euh, maanaam daal dañ bëgg a dugal ko <laughs> sangoo doo manqué sa kër. <laughs> maître Moussa am na ko fi sangoo. Alaaji maître ñu ngi koy ñu ngi koy nuyu bu ah, ah, suuf du ma ko tudd de. yow li ma bind lii moom du tudd suuf soosu de. Ah, waaw yow euh, ñu koy bu baax. daa am sama benn jàmm bu tudd Anjaw Ñing. waaw ab béykat la dëkk Kër Masayib Mbeng. dañoo sàccu fasam. <coughs> dañoo sàccu fasam de. yow sàcc bi nag. déglu li man lay sàcc. boo indiwul fas wi fas wi sama kaw nga ko teg kii amul fas bu nee jotee maay jënd fas de. ah dina am fas. yaay may sama magu papa. day fee du ko jëlee fenn. day fee <coughs> ku gis fas wi ku gis fas wi fas wu ñu sàcc def ma signe. <coughs> Eh, man suuf yi du ma ko lim. <laughs> man am na yoo xam ne doo ko lim moom. bilaay Omar Sidi ba mii di di di di di di tëgg sama boy bi. suufu lan naan ma suufu tànn biir. <laughs> waaw eh eh eh ngay tëju. Ah, ñu ah, tëjee. alaaji suufu tànn du dara. alaaji suufu dégg nga loolu alaaji. Euh, alaaji ma waaye alaaji. ah <laughs> daa am ko ñu jàpp ci bërëb bu tedd ba Touba. jannatu mu def lan ak barbateur woo xam ni moom yu góor yi lay jokkaas euh. maanaam borom ñaari tur daal barbateur buy chercher ay ay petit bët waaw ay barbateur yu góor petit barbateur léegi nag dafa am koo xam ne daf ko doon jokkaas dégg nga loolu waaw far nag mujj daanu ca biir pièce ba maanaam ko góor koo xam ne ay góor lay doxaan ngeen jéggal ma. Mhm. waaw maanaam góor jigéen la. waaw waaw foofu ca ca ca ca ca booru jannatu. waaw. ka lu mu jublu mu jublu si doxalu góor yi moom sëye leen wala góor ñoo ñu sëye ko moom. Ah. Ah, tout cas daal daal am na fu mu waxee ne daal moom daal mën na nangam ak nangam. waaw waaw nangam ja nangam ñu rek mënuma koo fee wax nag. waaw waaw <laughs> non non. léegi <laughs> studio bi bëri béy day balaaj. ma waaye du ma ko yeggee xanaa yéen ngeen yeggee ko hmm? moom daal nee na daal doom jii si ndax moo sama doom jee ko déglu. réew mi si ndax la ma ca dagg it wax naa la ko. la ma ca dagg wax naa la ko di. audio góor jigéen bi moom déglu na ko. ah waaye wax naa la ma ci dagg bi